dal leen ak jàmm ci leeral tv leeral point net tey jii ñu ngi daal di xëyee ci xëtam ngu njëkk reculade de Yewwi Askan Wi l'état de droit s'est imposé face à la tentative de déstabilisation naka noona ñuy daal di xamle gannaaw rek daal waaye Yewwi Askan Wi gu ñu bëggalee yënga réew mi lee ñu xam ne kat dëkk bi lee yoon a ngi fii waaye tamit stabilité bi ci réew mi kat moo ñoral li nga xamante ne rek ñoom ñoo yor kaaraangi réew mi lee ñuy daal di xamle rek daal naka démb rek ñi nga xamante ne ñooy Yewwi Askan Wi ñu waroon rek ab organiser ab maanaam doxum ñaxtu rek ngir wane itamit seen naqar waaye tamit seen liste bi nga xamante dañ koo di rejeté rek daal ngir ñu bañ a participer ci élection yi ñu jëdmal naka noonu rek daal bu fekkee liste bu njëkk ba accepté wuñu ko amul benn élection yi nga xamante rek daal mën nañ koo dëdmal ci réew mi ba mu daal di sotti naka noonu ñuy daal di xamle rek daal yeewi dellu na ginnaaw ci ñaari mbir ndax ki nga xamante moom mooy leader du coalition Yewwi Askan Wi muy ki nga xamante moom mooy Ousmane Sonko naka noonu rek daal xamaloon na ni le 29 gi daal fekkee ne rek manifestation amul soit dañ koy jàpp wala sax daal nguur gi daal di ko faagaagal waaye daal loolu dara mucc ndaxte yi manifestation googu sax mujj tant naka noonu yi tamit waxoon nañ ni li nga xamante ne rek daal moom mooy ñoom seen liste gu njëkk ga bu fekkee rek daal accepté wuñ ko benn élection duñ ko dëdmal fii ci réew mi te sax nag yeewi nag nangu na sax daal élection daal di am ci réew mi daa mel ni rek daal bu wax waxeet gi nga ne nemmeeku nañ ko itamit ñoom ci seen i nee nañ ay mbir rek daal moom moo tax loola ndax am na ñi nga xamante ne dañoo jóg jéego rek daal ngir ñaan leen li nga xamante ne moom mooy stabilité réew mi waaye tamit fiñ ko daal di wékk rek daal ñu ne li nga xamante ne moom mooy mbir mi ab stratégie dong la yéen kaay gi nag daal di daal di xëyle nee na ndax li nga xamante rek daal moom la waa Yewwi Askan Wi def ndax du ab stratégie wala dañoo daal di reculer yenn yéen kaay yi tamit naan ne dafa daal di reculer maanaam Yewwi recule sur sa manifestation ci lépp loo xamante rek daal ñoom dañ ko daal di woon na teg nañ ko ci suuf loolu rek daal ñu daal di sukkandikoo rek daal ci concert de casserole bi nga xamante ne Ousmane Sonko ti na ko rek daal kankang ak collection yi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko ci fan yële ñu jàll naka noonu rek daal Ousmane Sonko naka tey jii la ko daal di woote waat waaye bi yoon du fukki minute waaye 30 minutes la maanaam jàpp naka noonu mu ne rek li nga xamante daal nemmeeku woon nañ ko rek daal ci bële passé bi yoon ñeenti yoon la ko bëgg wala sax daal li ko raw naka noonu rek daal ñuy daal di fàttali ci manifestation gële ñu jàll rek daal muy concert loolu itamit daanaka servir ko leçon waaye tamit ñu daal di xam xamle guddi ajjuma sax lay daal di tombeel ndax ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko li muy daal di woote ndax jàmm la wala ambiance la ndax concert de casserole gi mu bëgg a woote waat gii ñu xool itamit lay jurandi jàmm la wala musiba la ba tey jii ci xëtëb gu njëkk ci leeral point net ñu àddu rek daal ci ay kàddu yi nga xamante ne eh, Pape Alé Niang daal dina ko rek daal di génnee jëmale ko ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ci yéenekaay gi lee daal di wax rek comment Ousmane Sonko va être emprisonné tué et cetera naka noona des graves révélations de Pape Alé Niang gannaaw rek daal moom mii ci boppam eh, gannaaw gi daal di xamle ne ci laay fam googa na naka rek la ñuy fas yéene moom mooy Sonko ba noppi daal di ko faagaagal maanaam daal di ko faat naka noona rek daal ay révélations yi nga xamante moom ci boppam boppam daal dina ko amal ci njëlbeen gi rek daal mu ngi daal di xamle li nga xamante moom mooy complot gi na yi nga xamante ne na ko dëdmal naka noona ñuy daal di wax ne mu ne moom ci boppam am na ay information yi nga xamante ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall faagaagal Ousmane Sonko waaye tamit ñoom sax daal mu ne ci seen i terme li ñuy woowee Ousmane Sonko ñu ne bandi bi lañ koy daal di woowee le bandi naka noonu rek daal mu ne le 29 gii bu fekkoon génnoon na lañ koy daal di ba noppi yóbbu ko ci prison bu Kédougou naka noonu ne Ousmane Sonko milekat daal par bal lañ ko waroon rayee naka noonu moom Pape Alé ba tey muy àdduwaat ci ay charges yi nga xamante ne daal teg na ko itamit ci ndoddu Macky Sall mile wax na itamit li nga xamante ne moom mooy alerte ba noppi nee na kenn sax ragalul waaye nañ daal di protéger seen leader gi askan wi nañu daal di protéger ki nga xamante moom moo Ousmane Sonko ndax ñi nga xamante rek daal moom mooy nguur gilee daf ko bëgg faagaagal ak nu mu mënta demee ba tax na daal liñ ko bëgg a defee rek daal mooy téex ko defee fii ci ndakaaru ko bëgg rek daal def su génnee fii ci ndakaaru naka noona nee ko def en 2019 fële ca Casamance waaye tamit ki ñi ñi daal di accuser rek daal muy ay parents am naka noona loolu la daal di wax ba noppi ànd ceeg fermeté gu jéggi dayoo waaye tamit àggu ca mu ne tamit li nga xamante moom mooy Ousmane Sonko lim koy daal di ñaan rek daal muy mu sol li nga xamante ne moom mooy gilet pare-balles waaye tamit du sax pour tiit waaye pour se protéger ndax ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall milé moom en 2011 soloon na li nga xamante ne moom mooy gilet pare-balles ndax yaakaaroon ne Abdoulaye Wade daf ko bëgg faagaagal loolu daal la Pape Alé mi daal di xamle ngir rek daal mën a wax ne Ousmane Sonko nguur gi kat daf ko bëggoon emprisonné ba noppi rey ko te coow du jépp ba tey jii ci xëtëb gu njëkk ci leeral point net entente Yewwi et Wallu la cohésion menacée par des positions divergentes sur la tenue du scrutin naka noona rek daal ñuy daal di xamle ñoom ñii kat daal fu mu nii seen diggante daanaka dafa xaw a ñagat di ko waral ay décision yu bëri yi nga xamante rek daal mi ngi jëm ci élection yi ñu jënmal naka noona daal ñuy daal di xamle Yewwi Askan Wi ñoom nag daal ñu daal di bëggee rek jàmm

seen liste amul benn problème tax na ba date nga xamante rek daal wax nañ ko ci lañ koy daal di tenir li nga xamante ne mooy élection yi lée maanaam rek daal le 31 prochain yi wàllu amu ci benn problème itamit lu ñu gën a seetlu mooy élection yi jege rek daal yenn incohérence diggante wàllu ak yeewu askan wi di féewaloo rek daal naka noona ci fàttali yeewu askan wi rek daal dafa daal di woon exiger li nga xamante moom mooy participation a ñi mu àndal waaye tamit ñu daal di xamle seen liste suppléant gile mooy mujjee dem rek ndax nangu nañ ka ba tey ci xëtëb gu njëkk ci leeral point net ñu àddu rek daale ci ay commission yi nga xamante ne ñoom ñoo àddu rek ngir xool li nga xamante ne moom mooy weer gile tabaski kañ lay am ak kañ la dul am ak ni ni mel maanaam commission lunaire ñoom nag daal ñoo daal di xamle tabaski gii le samedi 9 ak dimanche 10 juillet lañ koy daal di féete fii ci mim réew naka noona ñuy daal di xamle ñoom kat ci seen bopp ñi nga xamante ne ñooy commission nationale des concertation sur le croissant lunaire ñoom nag daal ñoo daal di xamle ne gannaaw gi ñu daal di daje naka démb rek fële ca RTS ñoom nag ñoo daal di wax ne li nga xamante ne moom mooy euh, tabaski gile dañ koy daal di célébrer rek le 10 juillet maanaam le dimanche ga waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy coordination des musulmans du Sénégal ñoom nag nee nañ euh, tabaski bile samedi 9 lay daal di tombel Arafat gile muy vendredi le 8 juillet lay daal di tombel nag Arafat saa yuñ li nga xamante ne moom mooy tabaski naka noonu ñuy daal di xam ne rek daal ñoom ci seen bopp daal nañoo réunir ngir daal di xam ne bépp xibaar gi ñi daal di jot ci réew mi ba noppi itamit commission mi ba noppi rek daal kër diine yëpp ñu daal di leen woo wax leen li nga xamante rek daal moom lañ daal di gis waaye ñoom nag daal dañoo daal di dëppoo ne weer gi kat daal maanaam le premier juillet gii moom mooy nekk premier jour du mois lunaire du tabaski maanaam rek daal weeru tabaski ci lay daal di taxaw moom muy rek zul hijaja naka noona la fête de tabaski li ñu daal di wax rek daal ci dimanche gii ñoom lañ ko daal di jàpp muy dimanche le 10 juillet 2022 naka noona rek daal ci lañ koy daal di célébrer ci l'ensemble du territoire national waaye bu ñu sukkandikoo ci communiqué gile muy leur coordonnateur général di El Hadj Omar Diène waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy CMC muy rek commission lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal ñoom naka daal li ñu daal di xamal muy gannaaw itamit bi ñu daal di toogee ñoom it naka dem rek muy le 29 juin gii ñu jàll ñoom naka daal nee nañ ni li nga xamante ne moom mooy weer gile rek daal weeru tabaski naka tey jii di alxamis ji le 30 juin 2022 moom mooy rek daal bés bu njëkk ci jul hijaaja naka noonu li nga xamante ne rek daal moom mooy vendredi di le 8 juillet 2022 moom mooy nekk rek daal jour arafat ci lañ war a woor te ci ëllëg sa dañoo war a rek julli mooy le samedi 9 juillet maanaam rek daal ñoom ci seen bopp jàpp jàpp nañ ne li nga xamante ne moom mooy tabaski gi lay dinañ ko daal di célébrer le samedi 9 juillet 2022 fii ci Ndakaaru nag sa gàttal eh, fii ci Sénégal eh, tabaski ñaari fan dong lañ ko nar defaat mooy le 9 ak le 10 juillet 2022 tey rek daal ci xëtam nga njëkk ci leeral point net ñuy daal di wax ne ci li nga xamante ne moom mooy mbiru bébé Aïda Milé ak ki ko daal di woon a sàcc naka noona yéenekaay gi di daal di xëyale enlèvement sur son identité sa nationalité naka noonu ñuy daal di xamle ki nga xamante ne moom moo jëloon rek daal bébé Aïda Milé moom nag daal li mu dal di waxoon dara amu ca ñu daal di xamle rek daal dafa waxoon ne Siré Dramé la daal di woon tudd waaye tuddul Siré Dramé Siré Diallo la daal di tuddu te waxoon na sax daal nationalité gambienne la waaye fii ci mim réew la daal di bokk waaye ñu xam ne sénégalaise piir la naka noonu rek daal l'enquêteur di daal di wax ne moom ci boppam gannaaw daal gi mu daal di waxee ne bébé Aïda kat daal ko woon def tamit amul benn intention gu ñaaw gi mu amoon ci bébé Aïda waaye loolu yëpp dara amu ca ndaxte itamit gi ñu daal di vérifier téléphone am gilee gis nañ itamit ay yeneeni xale yi nga xamante ne am na itamit ci téléphone am gilee maanaam mu daal di leen photo moom kat daal ni daa yàggoon nekk ci boppam gilee waaye tamit mu ngi ko doon woon ki nga xamante ne moom mooy jëkkëram ji waaye tamit li nga xamante ne moom mooy l'enquêteur yi li ñu daal di xamle ne mooy ki nga xamante ne moom mooy bébé Aïda kat bu fekkoon gisuñ ko woon li ñu daal di bëggoon muy rek daal yóbbu ko maanaam génne ko réew mi le maanaam sàcc Pikine gi kat daf ko yàgg a xaarandi maanaam daf ko yàgg a préparé loolu la daal di le rek daal ci yéenekaay gile maanaam rek daal lim ci dal di waxoon dara amu ca